auzu billahi mina sheytaani rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyyataha mina sheytaani rajim rabbi auzu bika min hamazaati sayaatiin wa auzu bika rabbi an yahduruun alhamdulillahi wa salla abada ala allazi lana huda abada seydina muhammadin wal ali wa sahbihi zawina walil wali ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar jida suñu be ziar bi Sëriñ Muntaxa Basiir ñaan yàlla suñu borom gudda fanam ba lépp mën naa mu yeggalu ko ànd ma la koy ñaanal si ñoom di Modou Mbène Fall yal na saa borom gudda fanam lépp lu mu naan mu yeggale ko ànd ko ñu taalibe yëpp waaye noonu la nuyoo bu baax di ziar di ñaanal bu baax baax suñu bunt ci Maam Serigne Fall ala jab de si Mamadou Sa Fall saa borom yokk ay leeram te taafu ci barkeem ñu ngi ziar bu baax ñëpp ñi nga xamante ne saa su nekk ñu ngi topp seen jotaay bii di yóbbul koor ñu di ko ànd ak yéen saa su nekk nag ci ci weeru koor weer yi nga xamante ni mi ngi tàggoo ndax ku ne xam na ni moom waaye ci fukki fan yeeg juróom kon loolu moom Euh, ma ngay dem kon nag yàlla na suñu borom def ñu kàttan rek ñu yeggale ko bu baax a baax a baax euh, di ziar tey nag dañoo ñëw indi ci ñi nga xamante ne suñu moom dogal na ñoom moom koor day wàcc ñoom wala boog tëm nañ ba xam ne mënuñoo woor waaye bañ ñu xalab leen wala bañ ñu wax leen dara moo tax ñuy forcé di koor di woor ba mujj gi sax da leen di jural gàllankoor ki seen wàllu wér-gi-yaram daa boo nekkee ci kër ñëpp di woor yow nga xam comme mu ngi mel ni magum kër gi rek mu dem ba tol yenn âge yi xam mënatu la wor waye dina jëm ni mom am na ba forcé di wor ba mujj gi sax forcé gog mu forcé koor gi da koy indi loraange te sax bu forcé ndax suñu bom comme wacce na ni ñi nga xamanteni ni dem nañ ba tol yenn âge yi ñu kàttanu wor wala bu woré wooree day indi loraange ci ñom neena de leen joxe muddu te baña wor wa bu fekkee ne yow loolu suñu borom dogo waxna la ko ba pare nga ah suma ma dal, ma wa kër gi dañ may wax dara wala suma woru Euh, amaana nangam loolu boo ko defee rek même boo wooree ba ba mu indil la loraange loolu mun nga cee bañ a am fay ndax dangaa ñàkk a jëfe ndigal suñu borom ndax suñu borom moom saa suñu digalee rek day xool ku ci nekk bugul gàllankoor kenn moo day wax ñi nga xamante ne ñoo ko man te boo xoolee koor sax ak ndaw moo koy def koor ku am carton moo koy def ndax xëy bu ko jot lekkoo naanoo loolu dafa métti ku am sa day métti waxuma la ki nga xamante ne nag suñu borom dogal na ni moom ah munu ko ka def bu munu ko kon koku da wara baye kor gog baña forcer bu ko indil ko ci wegeeram wala boog bu dee koo xamante dafa toll diggante eh, comme mu am ëm bes mu wor ko ni mom mi tamit eh, amul kàttanu wor waye dina bëgg wor rek ngir kenn baña xamni dara dal nako ko dafa forcer ba wor tay ji bu fekkee munu wor mun nga ñaka baña wor te kenn bañ ko xam ndax dañuy bëgg sa yow su fekkee da nga doon wor ba dok nga am sutura wala bo nga am ay ci diggante ñi nga xamante ni ñoom tam ñi ngi daa woor waroo di togg ci kër gi muy xeeñ ci ñoom waroo tamit di fësal bu baax a baax ni yow wóoroo ndax am na ñoo xamante dañ koo mën suñu xësee ba doog rek moom kër gi kenn dootu amati jaam dañuy yor seen lekk nit ñu toog ñuy lekk ci seen biir wala boog di togg ci seen kanam ndax bu fekkee am njaayeen la woor ba digg bëccëg nga defar njarum soow ci kanam wala nga togg añ ci kanam du bëgg loolu dog kooram gi te yaa ngi koy indi xel ñaar ci xelam té loolu noonu bakkar nga ci jëlé kon nañ koy baye xel ñi nga mom da nañ wor bu mënu suñu mënu ñoo wor ñoy suñu borom mo leen ko woyé falal nga ndax jaamu mom bëggu ñu tamit muy loré te ak jaamu yalla kat ah, suñu borom bu bu doon mom ñepp nañ koy def ku ko deful mëna nek nekk gàllankoor ci yow waye bu fekkee nak yow daan nga def ba sa wañé ko bu mënu joxé koor gi comme niko ko ñi nga xamanteni am nañ kàttan défé bul wor waye nak sa su nek del joxe mudum koor mi ndax dafa am solo ndax boo wóorul joxewoo ko tamit euh, day xaw a métti ndax loo xamante ni boo ko defee day remplacer li nga xamante ni euh, moom nga waroon def ci koor gi te boo defee loolu tamit ñoom ñu woor duñ la ëpp yoon yéen ay yéen ay tolloo rek ndax lee bi ko suñuy borom digalee moo digalaat tamit ni ku munul lii rek day def lee te lépp moom moo koy moo koy fayal boppam kon ndax te boo xoolee joxe ñam dafa dafa am solo wax nañu boo joxee kenn tibbum ñam mel nga ni ku tabax junniy jumaa kon loolu rek euh, dafa am solo waxu ñu nak am jaayen tok fe rek sëqat di sëqat rek ni mom duma wor wala bu bopp miti rek mu ni duma wor bala nga ñaka baña a nak ci tawat da ngay def bañ xol la mu ni la ah yow mi kat sa tawat ji mu ko boole koor gi ko bayel koor gi ba wër nga daali uh, fay waye nak bu fekke ko xamantene mom tawat ju sax dak la ba munu ko fay waxon nañ leen ko ci tambali émission bi ba munul mënul boole koor ak tawat ji te bu ko defee mun na ko indi gàllankoor dañ ne moom tam bu mu woor waaye nay joxe mu dum koor waaye daal li ñuy bañ daal mooy ngay forcé wala bo ngay bañ nit ñi wax la dara wala bo ngay bañ nit ñi wax la dangaa ñàkk jo wala dara ba tax nga def loo mënul nag ah, ba tax mu indil la gàllankoor loolu moom di nga ci sonn xiif ci mar indil la ko sa wér yaram te tamit doo ci am fayu yàlla ndax suñu borom waxoon na ca njëlbeen nga boo mënul na nga bàyyi def lii waaw ndax bu la dindilee lii rek day defal lee ndax euh, lo lépp ci jëfi suñu borom la ndax yërmandem moo moo toll noonu waaye euh, ak tabeem waaye ak bëgg ñëpp yiw moo toll foofu ba ni la boo mënul lii kat na nga def lee te lépp di nekk tawféex ci ab julit euh, ndax loolu dafa dafa am solo ndax nit ki woor sax ba mu wóor la ni kii kat amulum ko tey même bu dee da ngaa woor sax war nga koo jël dara ki sa alal jox ko ko loolu aw yiw rëy rëy la moo tax boo xoolee jamono naari ñoom dañ daan def bu doon koor la ku munta woor da ngay joxe kilo mburu ndax ñoom moom la ñuy lekk lu bari naari bu ko defee nag weer yëpp day nekk 30 kilo mburu mu nekk loo xamante ne mooy mooy jot sa koor waaye daal li ñuy dénk rek euh, mag ñi nga xamante amuñu kàttan wala ñi nga xamante ne tawat nañ tawat yoo xamante ne mënuñoo woor buñ forcé di woor ndax buñ forcé woor it mun nañ ci bañ a am fay ndax suñu bam la boo munul kat na nga def nii ku nekk rek indil na la noo xamante ne moom mooy jotu sa koor indil na la loo xamante ni mooy nekk tawfeex ci yow waaye bu fekkee da ngaa forcé ba def koom indi la gàllankoor nag ah loolu yow sa jëmm la ak buggoon bañoon nit ñi wax la dara ba nga mujj indi gàllankoor ci sa wér-gu-yaram te boo amee gàllankoor sa wér-gu-yaram du nit ñi ñoom ñooy ñëw di la ko fajal moo tax suñu borom moom lépp lu ñu diggal rek bëggul tamit loolu am ci ñun ndax bu bañoon loolu am ci ñun danaa na ko ñëpp yi def waaye dala dala préciser wax la boo mënul nanga def lii te loolu mooy nekk tawfeex ji loolu mooy nekk li gën ci nit ki waaw ndax suñu borom mi sàkk moom moo ñu gën a xam suñu bopp xam nañ ni bëgg nañ ko jaam waaye nag koo xamante ni munoo nag neen la dee def lii rek te lépp boo ko defee tawfee la te ki woor ak kiy joxe mudum kor ñoo bokk yoon rek ñoo bokk fay ndax ñoom ñaar ñëpp suñu borom moo ko joxe ndigal nit ki di ko def kon tey jii loolu lañ leen indiloon ci seen yóbbalu koor fii ci waa production ànd ak soxna seen bokk talibé soxna Adama Diop ñu bëkk ko ànd ak yéen rek saa su nekk ndax koor gi moom mi ngi dem yàlla na suñu borom may ñu kàttan bañ yeggalee li nga xamante ni moo des ci koor gi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa